salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku jullit yi maa ngi leen di ziar euh, di leen ñaanal waaye tamit di sàkku ci yéen ñaan donc interview bi may def nii du caa gën a interview lenn la dul euh, ñi nga xam ne ñoom hydraulique bu tuubaa nga xam ne depuis presque yaa ngi dégg 30 ans maa ngi ànd ak ñoom yarandoog ñoom màggeek ñoom ñi ci nekk ni juste tey di ay xale nga xam ne depuis très longtemps ñu ngi fi di difficulté boo xam ne vraiment état bi war na leen jàppale parce que bii mooy deuxième fois bi ñu am mu fit d'eau ci Touba bu ci njëkk bi ci biir màggal gi la woon si je crois bien korog ma leen fekkee sax juste sa korog dem naa ba nga xam ne mënutuma ko mun parce que sama rongoñ dafa daanu ci samay dënd parce que lu tax moment bu dafa fekkoon juste mu nekk moment boo xam ne foo mu nekkoon ñu di fa liggéey néewoon nañu fa doole benn ndox mi lu machine bi manque mu daanuwaat ci biir nekk ay situation yoo xam ne war nañ ko dénoncer tout simplement pour ñu dimbale leen bu fekkee dañuy wax ne Touba moom mooy deuxième ville bu Sénégal ñu ne am na hydraulique bu fi nekk ci Touba war nañ am ay moyens benn parce que moyens dafa am njëriñ ci surtout nit kuy liggéey rawatina service pompe bi ñu yor nii di ko inspiré juste ci seen pompe bi juste ci fuite bi sapeur pompier ñoo leen ko abal te xale yi fi nekk nii du problème mu coaching wala management métier mii ñuy liggéey nii ci la ñu nekk yàgg nañ ci boo xoolee ñu leen fi jiite woon yëpp situation bi rek lañ doon dund kon bu ñuy wax problème mu ndoxum Touba day manqué et cetera yooyu problème la mais problème majeur bi mooy juste mooy hydraulique bu Touba la ñu war a jàppale mu am mooy yu muy liggéeyee la fi may waxee yow nii juste depuis deux jours a ngi nii secteur bi ñu nekkee amul ndox xool leen fi ñu toll nii ñu ngi nii di ko wàq machine bi fi nekk di ko wàq lu mu wàq mu daanu ci suuf mais war nañ jàppale ñi si ñu war leen jàppale juste mooy. effective bu mel nii ci dëkk bu mel ni Touba boo doon quantité service bi juste li fa nekk lépp la effectif motul 20 personnes dama yaakaar ne président bi xanaa yëgu parce que bu ko yëgoon vraiment war na leen jàppale Touba. Touba ca kanam dégg naa leen sa juste ci période màggal gi donc moom am ay accusations yu fort yu ñu ci def ñii ne ñoom la ñii ne ñu leen la extra mais yooyu amul sens Touba ci kanam mu ngi ci rôle bi mu war a nekk Touba ca kanam sëñ bi lay liggéeyal. te boo ko déggee Touba ci kanam juste mooy dafa bëgg Touba mel ni noo xam ne ci mboolem ville nekk ci àdduna bi nu mu gën a taaroo mel ni lii ñoom bi ñu koy def seen propre mooy lañ ko def ak ndimbal loo xam ne dañ koy woote ñëpp jàppale ñi di ko def mais état moom moo dëgg dëgg dëgg dëkk bu nekk Sénégal su fekkee lii Touba ci da koo def amul leen ci fekk ñoom lii seen problème mooy ñu réglé ko d'une manière générale mais problème ba dëgg dëgg dëgg sëñ bi fekkee bëgg naa wax luy dëgg mooy hydraulique bu Touba dañ ko war a jàppale dañ ko war a jàppale ci ay moyens waxuma mais sa oto bi ñu liggéey sax bu la romboon fii tey mais mais buñ la nee autoservice sax doo ko mën a gëm quand ci ci état la ne xale yi fi nekk dañu sonn waxuma la dara mais amaguñ sa kànd mais koo ci seen tumta ni da nga yaakaar ne màgget la lu ko waral liggéey bu métti yaa ngi koy gis ni yii ay liggéey la yoo xam ne machine moo ko waroon def certainement il fait presque yaa ngi dégg 9 xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma 22 heures te actuellement balaa ñu yéegi par minimum ay 0 heure jëm 1 heure ay xale benn moyen amuñu ko il faut nag ñu waxtaan suñu biir te bañ a jayante ji nga dëkk bu fekkee da ko bëgg a defar da wax li nga xam ne dëgg-dëgg mooy li koy defar nga koo régler ngir problème ba jeex ñii ngay gis ni yëpp en ci dëkk parce que FIDO moom nga fu mu amee su ne ci tuyau bu mag moo xam 315 la moo xam 250 moo la il faut que da éliminer forage yu bëri pour mën a def pour mën ko defar boo ko éliminer doo ko mën defar bu fekkee dafay jël nag temps boo xam ne moyens ya ña fa effectif bu bëriwul situation yu mel nii rek la lay jur depuis deux jours xaw mu trois jours yi ngi ne ñun secteur bi amuñu ndox dama li ma lay wax lu ma xam la parce que newuma ci koo xam ne donc dama koy waxoon déedéet man ak ñoom ñoo bokk yorandoo te ci métier mi laa nekk. plomberie yi du ay caaxaan suturaawat nañu wet gi ñu féetu addition d'eau du problème mu manage du problème mu management du xam nga lan la ay moyens ay moyens mooy liggéey ñi amuñu yaa ngi leen di filmer parce que mooy bu ñu ko amoon situation bi du am donc loolu la man daal li may ñaan mooy ngir yàlla ak yonent bi Macky Sall bu fekkee man mu ngi may dégg wala interview bi yàgg na ci moom mu xam ne Idrissa bu Touba mat naa jàppale. deuxième ville du Sénégal war naa ki fa nekk nga xam ne lépp lu jëm ci ndox moo ko réglé dafa war am ay moyens oto bu baax amuñu ko amuñu dara lu ñu liggéey donc loolu daal je vous remercie.